te ñoom it li ñuy faral di am jafe-jafe bari na ba sax seen directeur boobee euh, dafa waxoon ne dafay daal di démissionné ci jafe-jafe yi nga xam ne rek euh, boo ngi ñu di ko daal di am <laughs> euh, bokk na ci wàllum li nga xam ne rek moo di Air Sénégal bi faral di am tolof tolof ndaxte ñi koy jël ci wàllum <laughs> voyage ne nañ daal dañuy faral rek di am ay jafe-jafe yu bëree bëri général yi moom nag fu mu toll nii daal président Macky Sall moo ko dese woon ndaxte mi ngi mel ni koo xam ne rek ne naa koy emal sa ànd ndaxte yow amuloo benn leçon boo xam ne rek mën nga wéy di ko jox li nga xam ne rek moo di réew yi daal di amal ab coup d'état ndaxte troisième mandat bi nga xam ne eh, da nga kaa bëggoon askanu Sénégal ñoo taxaw temm daal di la ko xeñ loolee moo tax nga daal di delluwaat ginnaaw waaye bu taxutoo nag loolee yow sax yaa ñuy gën a doylewaat ci li nga xam ne rek ñun ñi jot nañu ko daal di amal mu mel ni nag moom daal dina ko tontu ne ko état Sahel boobee ñun xam nañu lu ñuy def tax xam nañu lan mooy doon li nga xam ne rek moo di suñu priorité mu ne nag ñoom ñu leen di wooyee sax ay putschistes daal fu ñu xam ne certainement ngi ci di ci yëngatu lu gënoon jafe ci àdduna la ñu réussiroon mooy que euh, euh, ni Union africaine booloo doon benn mooy que ni aussi tamit euh, xam ne bu fekkee am na lu leen boole muy lu ñu am en commun moom mooy l'Afrique en tant que te moment bi ñu toll. mooy que ni pas mal de pays africains yoo xamante ni xam nañ loolu. Mm-hmm. muy euh, d' abord bi Sénégal peut être aussi mën nañ ko ci xaw a boole à cinquante pour cent parce que tey bu ñu xoolee li amoon mooy dañ doon def euh, wala boog euh, les colonialistes dañ doon def diviser pour mieux régner moo dañu gis benn pays Afrique bu commencé bëgg a muus bëgg yeewu xam ne carrément kat bu ñu amee lu leen téye ñu leen coloniser la et tout ça ñu jima dem pour neutraliser leen gën a téewaat li ni moom mais. dañoo toll nag ci moment bi nga xamante ni tey kenn tuwatul seetaan sa morom muy kenn tey Sénégal bu jógoon euh, pour mu dem rallier ci li nga xamante ni moom mooy Sahel bi comme bonjour Sahel bi aussi tamit mën nañ toog ñu ne kat dañuy tàllal loxo Sénégal pour mu ñëw pour may ko fit dama jàpp na ne tey loolu mooy li nga xamante moom mooy benn booloo boo xamante ni à l'époque amuloon parce que à chaque fois ma xookan ni tollal nañ ci moment boo xamante yu fekkante amoon nañ ay révolutionnaires yu fekkante euh, ni moom mooy Lumumba Thomas Sankara et tout

bi moment de rupture la moment bi ñu moom mooy moment de séparation la en tout cas séparation entre guillemets parce que nekkuñu ci moment boo xamante ni dañ naan nañu boot différence à 100 pour cent mais étant donné que mondialisation lañ nekk tellement que ni lépp dañu mën a permettre à mu nekk ak li nga xamante ni moom mooy norme yi àdduna bi di doxee te àdduna bi nan lay doxee moom mooy égal dignité nan lay doxee moom mooy kenn ku nekk di Euh, li nga xamante ni moom mooy bien-être France que li nga xamante ni moom mooy bien-être askanu Sénégal te tey bu ñu xoolee commencé ci Sall Diouf ak nga xamante ni moom mooy Senghor ñoom ñu fi gënoon nekkee moom mooy loolu il semblait ni ay représentants la ñu woon ci li nga xamante ni moom mooy Sénégal et d'ailleurs sax moo tax souvent ñu doon wax naan le pourquoi Emmanuel Macron di wax gouvernement Euh, du Sénégal ça veut dire sax dafay am problème pour wax la République du Sénégal mais à chaque fois gouvernement lay wax te dama jàpp ne tey loolu moom mooy lan mooy benn complexe la boo xamante ni foofu mën nañu utiliser complexe de supériorité ñoom pour ñoom ñoom ñoo ñu supérieur ñoo def nangam te tey àdduna bépp d'accord nañ kani ba muy mooy kani lu ñu wax à chaque fois rek suñu leen ci parce que nag deuxième guerre mondiale buñ comprendre bu baax presque mën naa ne suñu ay maam ñoo dem sauver li nga xamante ni moom mooy la France te dama jàpp ne tey loolu mooy il faut ñu xam ne carrément muy Euh, général Tiani muy peut-être euh, Doumbouya muy peut ki nga xamante ni moom mooy Assimi Goïta ki nga xam ne moom Ibrahima Traoré tout ça dañoo mënuñoo bokk ak le président Sall benn bool bu ñu lekkee parce que politique bi ñu incarné bokkul mooy ñoom dañoo xas a am comme seen xel mi kaniñ euh, ñun kat lu ñu gën sonal moom mooy président yi nga xam te ni moom lañ am te Sénégal amuloon coup d'état amuloon transition bu doy waaree tout ça léegi ñoom nag lu ñu bëgg rek moom mooy ñun pour ñu gën a mën mooy que ne il faut ñu def de sorte que peut-être fekkante ne réussir ñu loolu rek mooy président Sall dafay continuer di nekk benn épée pour ñoom parce li ñu bëgg pour ñu réussir ko am Sénégal dafay gën may leen li nga xam ni moom mooy doole ci fànn yu bëree bëri te tey buñ leen bàyyee ñu demal seen bopp dafay xaw a nduru benn euh, mbir boo xam ne wala buñ fexee ba peut France wooy di encaisser waat Sénégal hmm. dafay xaw a compliqué ci li nga xam ni moom mooy moom parce que à travers Sénégal mën nga fi ñu toll que ça gis nga Traoré toog publiquement devant Vladimir Poutine euh, entre guillemets wax loo xamante ni langage côté la mais téewul xaw a nangaañ ki nga xamante ni moom mooy Sall et d'ailleurs dafa mais dama daal fi ñu toll nii moom mooy Sall dem na bu fekkente ni dañuy gën a réorganiser wu pour gën a booloo doon benn nañ tàllal loxo le président en exercice muy Diomaye parce que quoi qu'on puisse dire mooy que ni instant nii ku jig njaag moom moo war a nekk njaag léegi nag nañ ko boole ci mbir mi ji ma xool nu ñu mën a liggéey ne euh, bokkatuñu fi nga xam te ni moom mooy CEDEAO léegi loolu aussi nag beneen liggéey la boo xam te ni peut-être au fil temps état na jël ay li nga xam ni moom mooy décision. la soxla wàllum franc CFA boobee naam ndax ki nga xam ne rek moo di gouvernement bu Bassirou Diomaye ko ci wàllum distribution euh, jëmale yu ni mel ci wàllum semence bi loolee nag jàppal clé euh, di commissaire Wardini mi ak ki nga xam ne rek moo di Sankum fay ñoom daal nee nañ bëgg nañu kontaan nañu ci taxawaay boobee nga xam ne rek li di premier ministre jar na ko jël ànd ci également ak jëwriñ bi ñu dénk lu jëm ci wàllum agriculture ak yeneen ci ay mbir ba tax na nee na état bi wala sax armee bi dina def kéemtalaay kàttanam ba jël li nga xam ne rek moo di ay moyenam daal di ko dugal euh, ci mbir moomee Mor li ma gënoon fa si xibaar yi ñu lay jaajëfal. madame Diop <laughs> jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal Touba aussi. jërëjëf merci beaucoup ñu ngi jaajëfal également Aïcha mu nekkoon ci xarala gi Abdou Khader ak ñëpp ñi nga xam ne rek jàpp nañ ci xibaar yi ba lépp mën a yem ñu mën leen ko dégtal ci kanam tuuti incha allah di ngeen mën a am passation de service bu Papa Alioune ginnaaw gi également Mor dana fi teew ci wàllum wax sa xalaat ginnaaw gi face à l' actualité dana fi teew fas yéene yeneen i thème ak yeneen i invité fas yéene ko dal di faram fàccee jërë ngeen jëf jumaa mubarak